nga xam ne lislaam xewleeti na waaye ku gis jëmm yu taaru yi nekk sama wet nga xam ne faydu bi xewleeti na kan moo xewleeti a cheikh Mouhamadul Amin a cheikh Ibrahima Niass kan moo xewleti ki bàyyi waxoon ne ko yaay xaamilal choxlati kan moo xewleeti ki bàyyi waxoon ne ko faxtafis bi haadihi amaanati xatta naltaqiya amaama allahi wa rasulihi wa cheikhu tijaani kooku mooy wakkilu daali maolana cheikh mohamadul amin cheikh ibrahima Niass ñuy waajal ziyaaraam ziyaara bi nga xam ne taalibe yi ak soppe yi ci njiital a cheikh moustapha yusuf bi tey moo koy organiser chaque année ànd ak taalibe yi ak soppe yi incha allahu rabbi def li nga xam ne mooy baaxu pays maolana cheikh al islam alhaaji ibrahima Niass baay mi waxoon ne fal tajcalanna alkarimi karamati illa liqaaika aladim ñu jox suñu rakk suñu xarit cheikh mouhamadul amin ka di turandoo si borom bés bu màgg bi mu jàngal ñu alquranul karim وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا واستغفر لهم الرسول جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ۖ أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الله الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً sadaqallahu al-azim gannaaw aaya alquran yu sell yooyu ñu ngi présenté ñi nga xam ne ñoo nekk suñu wet di njabootu cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahima Niass di muqaddamu a cheikh Mouhamadul Amin a cheikh Ibrahima Niass di ay taalibe a cheikh Mouhamadul Amin a cheikh Ibrahima Niass ma tënk ko ci benn wayu cheikh mahmadul amin cheikh ibrahima ñas bi ko bàyyi waxee wax ju kawe gu màgg googu baaba dafa bind tontu ko ne ko sa urisuhu nasli wa kulla ahibati ila muntaha dunya wa ma huwa abadu ñu ngi toog ak a cheikh abdallah a cheikh mahmadul amin a cheikh ibrahima ñas mu nekk ci wetam rakkam a cheikh mohamad nuuru diin a cheikh Mouhamadul Amin a cheikh Ibrahima Niass nekk si ndeyjooram a cheikh Ibrahim Dieng di jarbaat wala di sët si a cheikh Mouhamadul Amin a cheikh Ibrahima Niass waaye ñu ngi ànd ak ay muqaddam ñoo xam na si keppaaru cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahima Niass lañ nekk di bay ay di bay waar yu kawe si xam-xam. ci faydu bi ci dina lislaam ñu ngi nuyu Cheikh Mouhamed Bassirou Ndaw mi nga xam ne bés bi dafa jaayante ak yàlla ak Cheikh Mouhamadoul Amine Cheikh Ibrahima ñas ne kenn duma si man te kenn duma ci jiitu mu ci def liggéey bu am solo di ci ànd ak ñun équipe bi waaye nag ci keppaaru Cheikh Mouhamed Youssouf Moustapha bi tey ñu ngi ànd ak borom xam-xam koo xam ne su waxee rek ñu xam ne boroom xam-xam la muy jàngalekat muy al ustaaz wal imam Seyd Alioune Faye nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci xam-xam ci télévision yi ci jàngale ci mboolem fànn yi waaye ñu ngi ànd ak ba tey al ustaaz wal imam ustaaz imam uh, Malick Ba nga xam ne moom it pay bi ràññee nañ ko ci xam-xam waaye rawat na kër gi ndax saa yu lii amee rek bokk na ci ñi nga xam ne ñooy jiite jotaayu xam-xam yi ñu ngi ci ànd ak Babacar Gassama nga xam ne moo yore wàllu organisation bi te am na lu bari loo xam ne moo ko war a leeral ci programme bi nu muy tëddee bu bés ba incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ñu ngi jox kàddu gi Cheikh Mouhamed Bassirou Ndaw mu wax ci solo bés boobu mooy bésu ziyaara bi waaye mu wax ci kan la ñuy defal ziyaara bi mu wax kan mooy Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahima Niass ci ay jaar-jaaram macha allah ci liggéeyam ci biir senegal ak ci biti Sénégal. alhamdulilahi hamdan yuwaafi ni'amahu wa yukaafi'ul maziid alhamdulilahi rabbil aalamiin alhamdulillahi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultaanihi wasalaatu wasalaamu ala alfatihi alxaatimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim wa radiallahu taala an ashaabi rasulillah wala hawla wala quwata illa billah yaa himmata cheikhi uhduri lana bi hada almahdari waltatafi bi nazratin tati lana bi zafar gannaaw sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu al mujahid al kabir xalifati cheikh ibrahim radiallahu taala anhu wakiilu daat allazi ma kalla wa ma malla yukaafihu fi tahqiqi daawati al islam sharqan wa maghriban allazi qaala fi haqqihi mawlana cheikh ibrahim radiallahu anhu waladi jisman wa ruuxan wa insha allah wal awnu ala al mustaqbal tariqi wa qaddi al ustaz Mouhamad al Amin kooku ñépp amel nañ ko njukkal ñépp nag jullit tijaan ku dul tijaan ku gëm tariqa ku ko gëmut ndax moom serviteuru àddina bi yépp la koo xam ne du tàyyi du sonn ngir dëggal oote laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba nii may wax mu ngi Paris te dara yóbbu ko fa lu mooy yëkkati baatab laa ilaha illallah tasaare lislaam tariqa tijaaniya fayda tijaaniya defar mbindeef yi kooku ñépp ko ameel njukka ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yàlla yokk wéram ba yéeneem yi Maulana Cheikh Ibrahim amoon ba dénk ko flambeau bi na ko suma doom ci jëmm ak ci roxo rendez-vous ba ca kanam yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmed Tidiane pour nga tasaare diine ji liggéeyal diine ji ba tey jii ku ne xam na ne bu ko neexoon toog waaye terewul mu ngi dem loolu nag daf ñuy fàttali fi nga xam ne ci ajam gu mujj ñépp di ko wax ne ko toogal mage nga mage nga nangam na ne yaquluuna la taxrub bi zirhamin li suqmin wa mahramin fa uzruka min shamsi zahirati aw dahu ñépp ñu ngi naan ma mage nga am nga ngànt ndax sa ngànt lu leer la waaye naka ngeen may tere koo xam ne suma diggante ak moom dara doxu fa ñépp a ngi dem ca man ki may feebar moo yonant ki may faj mooy yonant yàlla moom loolu da koy gis ci jëmm Cheikh Mouhamadou Lamine kooku képp koo wéetal rek mu ne Baba Lamine fam jaar ak man Baba Lamine mbaaxam am na benn kayan kayan bu caalit ba ne nangu ne day bàyyi moo ëpp ba baaba xam-xam waaye nangu ne bàyyi moo gën a baax Baba Lamine ndax ca du taalibe sax ndax njëkk bu ko baaba defal loolu ñu ne ñu dem ci bitim réew xam nañ ko ndax nit la koo xam ne model la ni mu liggéeyalee diine lislaam plus de 30 ans noonu la ko liggéeyalee réewam ci ay wilaayaat yu fasante ko ci diplomatie di régler lu bëree bëree bëree bëri kooku lañ la ñuy ziyaara le 3 août fii ci kër gi moom la ñuy ziyaara te ziyaara mooy yokku ziyaara mooy yokku wala istimdaad kooku nag xool ko mbaxam yàlla la toogaaleeg moom yërmande yàlla la ndax bi zikri saalihiina tatanazzalu rahmat kon ñu ngi woo àddina yépp kon ñu ngi woo aalamul islam sharqan wa maghriban ci ziyaara al mujahidil kabir Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin di nuyu njabootam gii nga xam ne ñu ngi teew ñun Cheikh Abdallah Cheikh diin ak sëtam bii nga xam ne moo doon jàng xatmu bi Cheikh diin ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ndax mu ngi ci yoon wi wax dëgg yàlla su waxee nga fàttaliku Cheikh Mouhamadou lemin su bindee nga fàttaliku ko loolu dafay tegtale rek ne mbir mi moom mu ngi delluwaat cosaan bi rek kon yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk la ci barke Seydina Muhammad maa ngi ñaanal suñ mbokk Moustapha bi tey yal yàlla may ko wér yal na yàlla guddal fanam dañoo ñëw pour uutu ko ndax mu fi ak ñun ndax dañuy wax ne man sanna sunnatan hasanatan wa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamati ku sunnaal sunna su baax yàlla dana la may yool bi ak képp ko jëfe moo sunnaal lii ñun ay ndawam lañ ay soldaaram lañ ñu nekk ci wetam di ko jàppale ci liggéey bi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ki nga xam ne mooy al imam Ba Cheikh Mouhamed Moustapha bi tey dafay faral di wax saa yu nekk ne ma Ibrahim mu ne ma ñi nga xam ne dañoo nekk ci wetu Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahima Niass saa yu baaba wootee rek di leen jiital te ñun ay ndaw lañ yoo xam ne dañuy bëgg jaar fii fi nga xam ne moom lañu suñu mag yi nàmpatal te loolu dañ ñuy digal alhamdulillahi ladi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allahu wasalaatu wasalaamu ala hadi albasar sayidi al arab wal ajam alfatihi lima uxliqa wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu baaxeewaat xiwal gu réy gii nga xam ne nege ni daaw lañ fi daje woon yàlla mayaat ñu ñu daje ren ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu fekkeewaat di julli ci yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa moom moo gindi jaam yépp teg leen ci yoonu topp seen boroom ci ni ko yàlla digle di jottandiku ci dara jàmm ne yàlla yal nañu yàlla may ngir mande suñu sëriñ di Mawlana Cheikhul Islam El Hadji Ibrahima Niass te pour ñu am ngir mande moom suñ sëriñ dañuy jaar ci suñuy buntu ci moom di Seydi wa Habibi Cheikh Mouhamadul Amin Baba ñoo ngi koy nuyu di jaare ci moom di nuyu ay magam ñépp moom mi nga xam ne ay magam ñu waxoon ne nangeen xam ne baaba moo toogal Baye ñas ci dakaar loolu mboolem kuy taalibe Baye danaay wax toujours ne war nañu bàyyee xel loolu te ñu bari ñoo ngi koy dundal kon ñoo ngi leen di nuyu ci njiital ki nga xam ne mooy alxalifa saaxibil fayda muy tiitaru àddina di xaadimul umma mawlaya seydi seex muhammadul maahi ibrahim di koy ñaanal tukki wi mu nekk yal na yàlla dolli ko ndam te delloosi ko ci jàmm waaye mën nañu ñàkk nuyu imaamul akbar ci saxalal ko ñaan waaye suñ nuyoo nooñu nuyu nañ ñëpp di nuyu nag njabootu Seydi Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne tey ñoo toog ak ñun ñu ngi leen di saxalal ñaan di wax amin ci seen ñaan di nuyu muqaddam yu tedd yi nga xam ne yi ñoom lañu ñu toogaale ak ñoom mbokk yi mbokki jullit ñi li xew mooy jàmm jàmm ji nga xam ne lislaam waxtu wu nekk moo ngi koy oote waaye pour yokku moom mi nga xam ne moom lislaam amul tànk gannaaw moo tax ay doomam waxtu wu nekk ñoo ngi seet ci ay bés ci ay weer ci ay at lépp lu xam ne lii mooy tax ñu gën a yokk yokkoo ci diina lislaam yokk ci tariqatu yokk ci fayda moo tax waxtu wu nekk ñu ngi oote ay daje daje bi ci la bokk muy daje boo xam ne yokkute la ñaal mboolem kuy doomu aadama su ma naataangoo di imaam Seydi Mouhamadul Bashir wax na ko léegi kuy wax ci Mouhamadul Amin dangay wax ne alam bi yëpp ngay waxal ndax dafa servir ñépp man mi ci Makka dund naa fa ay weer ak ay yoo xam ne liggéeyam du wóor luñ fay lambatu am na lu ma ci xam ci jëflante yi nga xam ne jëflante na ko ak jullit ñi waaye rawatina ñi nga xam ne ñii ay africain lañ am na ci koo xam ne Ngom Médine lañ koy wax muy waa Paal ma dëkkoon ak moom mu may wax yu bari yi nga xam ne yi Seydi Cheikh Mouhamadul Amin jëriñ na ko ci jamono yi nga xam ne mu nga makkatal mu karam kooku nag su fekkee ne Eh, ñun ñuy ay taalibeem daje nañ ne dañ koy ziyaara ngir bugg a yokku jaare ko ci suñu magab taalibe bu nga xam ne sunna bii moom moo ko njëkk a xalaat am ci ndigal Mawlana Seydi Cheikh Mamadou Amid di Cheikh Moustapha al imam dëgg-dëgg dañuy wax ne kon taalibe yi dëkkee Dakar man ci laay njëkkee ndax mbey ci sa weyu oom ma njëkkee itam ci quartier bi nga xam ne falaa dëkkee di asilem Grand Yoff walan waaye ni ki noonu jaxaay cité gendarmerie ci gox yi nga xam ne yi yëpp xammee nañ fa yëngatu yi nga xam ne yi fayda bi mu ngi fay yëngu waaye ci ndimbalal Mawlaaya Seydi Cheikh Mouhamadoul Amin maa ngi wax taalibe yi ñëpp bu kenn sakk ngant ñëpp nañ woy si ndax ku woy si jëriñu kon oote baa ngi noonu ci bañ a guddal di ñaan yal nañ ko fekkee ci tal yàlla bu ci benn gàllankoor am yal nañ ko yàgg taxawee di koy ñaanal moom Seydi Cheikh Mouhamadul Amin yal na ko yàlla gën a yàggal suñ kanam mook ay magam ak ay rakkam waaye di gërëm bu baax nag njabootam bi nga xam ne waxtu wu ab sante ci dara rek ñoom seen taxawaay rawatina ci seen mag Seydi Cheikh Baye lamin nga xam ne lépp lu nga xam ne lii baaba war na ko taxawee rek Euh, moom dina yebal rakkam yi wala mu jógal boppam ñu ngi leen di ñaanal te feddali suñu wëlëre bu baax di ñaan borom bi tabaaraka wa yal nañu dolli jàmm ci suñu réew def ko ci réew àddina bi yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kàddu yi rafet na te jotale na kon ñu jox suñu mag suñu xarit suñu wëlëre al imam wal ustaaz al cheikh Alioune Faye shaytaan rajim bismillahi irrahmani irrahim allahuma salli ala sayidina muhammad alfatixi lima uliqa walxatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim wa radi allahu taala an ashab rasulillah wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim wa ya himmata alcheikh uxduri lana bihada almaxdari waltacatifi binadratin tati lana bidafari mbokk yi ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara waaye ñu ngi dalee nuyoo bi ci ki waral jotaay bi muy suñu sëriñ di wakilu daat di cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla yàlla delloosi koy ak jàmm yàlla itam may ko ak wér. yàlla may ko wér yàlla may ko wér ñu ngi nuyu itam njaboot gi nga fi wutu ñu njëkk ci tudd Cheikh Baye Lamine nga xam ne mooy léppi baaba dafa tukki waaye nekkoon tey mooy fii waaye demut ndax ayra rakkam ñoo ko fi wutu mu Cheikh Abdullah mi ngi ni toog Cheikh Mouhamadou Nourou ak jarbaatam yi ak muqaddamam yi ak taalibe yi ñu ngi koy nuyu di nuyu mbooleem ñi fi toog waaye ki tax li tax ñu daje mooy lan mooy dañu war a ziyaare suñ sëriñ waaye kan kañ la ziyaare bi la trois la août allah fii ci liberté 6 bu kenn des kan la ñuy ziyaara ida qaala alxaddaami fa saddiquha fa in alqawla ma qaala alxaddaami xasaami bu waxe rek gonga la wax ji lépp mooy li xasaami wax maanaam dama bëgg a wax ne li ma bëgg a wax ñi ma jiitu wax nañ ko ki ñuy ziyaare mooy ci bàyyi xool ba wax ci moom wax ju ji nga xam ne Cheikh Ibrahim Diassi wax na ko léegi ahimu bi daadin ma xayitu wa in amut uwakkil bi daadin man yahimu biha baadi kooku la ñuy ziar koo ne moo jël mbëggeel ak bàyyi gi bëgg yonent yàlla Muhammad bàyyi bëgg bëgg Cheikhu Tidiane bàyyi bëgg bi gi mu bëgg yàlla mu ne kii moo moo ko donn waaye kooku ku ko ziyaare xam nga ne moom Cheikh Tidiane nga ziyaara ku ko ziyaare bàyyi nga ziyaara ki ko ziyaare yonent Yàlla Muhammad nga ziyaara kon loolu ziyaada la waaye itam siyaada la waaye riyaada wa maa katrati ziyaada ziyaarat yaani takun laka ziyaada wa takun siyaada wa tusbihu raidan fi kulli makan kooku la ñuy ziyaare mooy Mouhamadul Amin mi nga xam ne bàyyi nee na ko maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal ci weetaay di la ñaanal itam ci mbooloo alhamdu wa shukur maan wa daawa lizal bu na yi fii xalan wa jalwa mu ne li tax ma sant la gër ñaanal la mooy dama laa gërëm radaytu anka wa hamidtul baaqi ba ma la gërëme yàlla laa sant moom mi nga xam ne moom rek moo fi des bu ñëpp demee ku yàlla bàyyi gërëm nga siyaare ko xam nga ne siyaare nga wàllu yàlla pire te nag ziyaarat ziyaarat ul arbaabi tuqaa marhamun yabri ziyaare wàllu yàlla pomaat la boo xam ne dafay faj feebari xol ñun ñëpp dañoo feebar dañoo ràgg dañoo wopp kon buñ bëggee wér nañ ñëw ci hôpital baa ngi nii Sowétas baa ngi nii muy fan muy ci hadratu Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ci Liberté 6 foofu la Sowétas bi nekk ku tardé ñàkk nga perte nga kon ñu ngi ci oo mboolem way penkook way sow ku weex ku ñuul ñëpp ñu leen di xoo ci fii nga xam ne fa la ñuy jëlee njëriñ te bàyyi na njariñ mooy tax ñu mooy tax ñu topp sëriñ ku bëgg a na ñëw fii ñu ngi ci oo ñëpp te nag bëgg naa baaba waaye doo ko siyaara wala jaralu la dara mbëggeel ga du dëgg zur man hawayta wa in chattat bika daaru wa xaala min dunihi xujubun wa astaaru laa yamnaannaka bu'dun an ziyaaratihi inna almuhibba liman yuhibbu zawaaru ki doon jàng alquran loolu la ubbee falawlaa id zalamu anfusahum jaa'uuka fastaghfaru llaha wa staghfara lahum rasul la wajadulaaha tawaaban rahima waaw lu tee bu ngeen demee ma def ay njombe def ay bakkaar tooñ seen bopp mooy yàlla tiimal seen bopp lu tee bu ngeen defee loolu ba pare ngeen ñëw jéggalu yàlla bu ngeen jéggaloo yàlla ci kanam yonent yonent jéggalul leen yàlla kon ñun mënu ñëw jot jote ci yàlla ci yonent la ñuy joti yonent moom joti na ci yàlla mu jéggalul ñun yàlla yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar waaye ñun tam nag ñu ngi fees ay bakkaar fees ay tooñ ay soxla ay feebar ay ragg waaye nag ñun mënuñoo sàkku njéggal waaye nañ ñëw ci baaba bu ñëwee ci moom jéggalu yàlla mu jéggalul ñu yàlla yàlla jéggal ñu fomp suñuy tilim tilim kon loolu moo ñu fi oo jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. fi imaam tëjee zur man hawayta wa in chattat bika daaru wa xaala min dunihi xujubun wa astaarun laa yamna annaka baadun an ziyaaratihi inna al muhibba liman yuhibba zuwaarun kooku lañuy ñuy ziyaara ziyaara nag dafay lamboo ay njëriñ yu bari aziyaara hiya aziyaada ku bëgg a dolleeku le trois ñun lay jox rendez kan la ñuy ziyaara le 3 waxoon nañ ko léegi ki bàyyi wax si xaqam ne ko rabbal amini aati bil amini kullal mataalibi kullal mataalibi li kulli xiinin ma jële si fu wér te su ma neexee mën a si jëmmi ki ñuy ziyaara laa ko jëlee mu ne ba bàyyi waxee wax ju màgg googu dafa am ñu bari ne yonent yàlla Muhammad la bàyyi wax bàyyi na déedéet suma Muhammadul Amin mii laa wax mooy baaba Lamine ñu ngi woo ñëpp ci bés bi nga xam ne ku ñëw rek danga nga fi fekk jëmmi taar ku ñëw danga nga fi fekk jëmmi njëriñ ku ñëw da nga fekk jëmm ji nga xam ne soo ko joxee rek dafa mel ni baltens boo ko joxee rek mu del siaar si yow kon ñu jox kàddu gi ki nga xam ne moo yore programme bi su ko defee mu wax programme bi naka laay demee alhamdulilah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bi tedd bi gën a sell bi gën a matale mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi sant yàlla jullit si yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi salmal suñu pay sëriñ Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu di kañ di bàkk suñu sëriñ mi nga xam ne moo ñu xamal mboot mi ñu xam mi ñuy sikar mi ñuy dund mi Mawlana Cheikh al Islam Haaj Ibrahim Niass radiyallahu anhu su ngeen gisee. jotaay bu tedd bi xar kanam yu tedd yi ak barab bi ngeen xam ne miin ngeen koo gis te xam fan la muy war a toog waxtaanee lu jëm ci siyaara Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass euh, ginnaaw bi ñu sante ñi ñu war a sant ñu ngi ñaanal yàlla suñu sëriñ Mawlaay Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dellusiwaat ci jàmm. waaye itam ñu ngi siyaara al imaamul akbar Cheikh Tidiane Ahmed Aliou sise di ñaanal di siyaara suñu xalifa Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass xaadimul ummati ñu ngi leen di ñaanal baax a baax a baax di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toog ci jotaay bi waaye di ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha Yusuf bi tey eh, yàlla mooy ko weer del ko delloo ko ci jotaay bi incha allahu taala ñu ngi jaajëfal. si njabootu cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass si njiital cheikh Mouhamad Nouruddin te suñ ko waxee rek suñ ko tegee ci loxoom rek matala na dina ko teg ci loxal baayam suñu sëriñ ñu ñëpp euh, mbokk yi ci loolu ñu ngi leen di woo si siyaare bi nga xam ne mooy siyaare cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass siyaare bi nga xam ne cheikh Mouhamadul Moustapha Yusuf bi tey moo xooloon. gis na Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass mi ngi jóge Arabie Saoudite di ñëw fii su su jëlee congé mu sampal ko siyaara depuis 1998 fële ca Liberté 4 kër Papa As ñu di ko defee foofu ànd ceeg Nasrul Fathi ñu ñëw ba jamono ahlul xidmati al mutahabina fillahi juddu ñu ànd lëkkaloo bootu ci ginnaaw Cheikh Mouhamadul Moussa Youssouf bi tey taxawal li nga xam ne mooy siyaare bi ñu jëlee ko foofu indi ko ba fii ci bunt ci biir néegi sa sëriñ bi di ko fi siyaara foofa xajatuñ fa ñu ñëw ba ci fii ba wàcc ci suuf loolu sant yàlla la siyaara bi nag ñu ngi koy def euh, samedi 3 août 2024 incha allahu taala muy ci weer bi nga xam ne weerab août la Cheikh Ibrahim Diassé wax na ko léegi ku bëgg xaalis demal ci baaba waaye ku bëgg yàlla yi tamit demal ci baaba te dëgg-dëgg li ñu fiy indi nag du xaalis waaye yàlla la waaye nag alal dafa bokk ci li nga xam ne dafay dundal kon ñu ñëpp dañ koo soxla kon ci loolu nag weeru ut bi nag ñu ngi ñaan yàlla dajeeg suñu sëriñ xool ko mu xool ñu yàlla tëjju suñu mbooleem aajo yi programme bi nag mu ngi tàmbalee 17 heures bu ñu sikaree ba wasifa jot 18 heures et demi jàpp 19 ñu teg ñu def wasifa bu ñu wasifa ba noppi julli timis programme bi foofu lay démarrer incha allahu taala kon su ko defee fi ñu koy defee nag mooy fii ci buntu kër sëriñ bi su ko defee ñu noppalal ko yombalal ko nga xam ne su wàccee du daj benn coono toog janoog taalibe yi ñaanal leen yàlla su paree duggaat nànk ci biir këram buuxante du am dara du am kon nag noonu lañ ko fas yéene doxalee incha allahu taala di gërëm nag mboolem mu xaddam yi nga xam ne tey teew nañu ak ñi nga xam ne bëggoon nañoo teew waaye comme bisu xadara la xëy na moo tax mënuñoo teew ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn. a a يا أئمة شيخي أحضر لنا بهذا المحضر ولتحتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر ñoo ngi sant yàlla di am yëg-yëg bu fort que ni Dakar na dakaar mi ngi sant dakaar am na teraanga bu rëy gannaaw bi nga xamee ni sunu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim wàcceel nañu fii ki nga xam mooy waxiiru daal ñu ngi koy am di ko am yëg-yëg bu fort ba tax na ñi ngi profitoo rek di woo ñépp ñi nga xam ni ay ndaw lañ ay chef d'entreprise lañ képp koo xam ni yaa ngi fii Dakar nga fekkee xéewal bu mag bii nga xam ne moom mooy ziyaara xéewal bi mag bii nga xam ne moom mooy xéewal yokkute ñun suñuy woo dañuy woo tam waa diaspora ne leen ki nga xam ni dafa am yitte di jàppale kenn ku nekk am taxawaay ku ko woo mu wuy la fekkee dafa am bisam waa Dakar kase waruñu ko taxawee kon diaspora ñu ngi leen di woo ngeen ñëw ngeen yónnee seeni doom seeni waajur seeni alal ngeen ñëw teewee bis bu mag bi ndaxte dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo siy jàpp moom mooy la presse moo tax presse boobu ñun lañu am mbégte di leen remercier ci seeni taxawaay ci li nga xam ne ñu ngi koy def ci pays bi rawatina ni may tuddee la presse spécialisée de la fayda ndaxte ñoom seen taxawaay dafa am solo ñoom ñooy jóg guddi ak bëccëg ak i gàmmu lépp loo xam ni pay bi mi ngi koy dox waa presse boobu noonu ñi ngi ci di ci dox saa su ne donc ñooñu dañ leen di remercier bu baax di remercier tamit euh, ñi nga xam ni moom mooy la presse nationale nga xam ni ñoom tam xam nañ li nga xam ni moom mooy liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim nu mu amee importance te média am solo ndaxte li bàyyi def ci àdduna Sénégal waxuma Sénégal daf ko war a xam bu baax a baax te ñi ko war a ko war a xamal moom mooy les médias donc ñi ngi remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ñi nga xam ne ñoom teew nañ te ñi ngi woowaat tamit bépp média national ak international ñëw fekkee bis bu mag bi nga xam ni bisum fàttali la bisum cant la ki nga xam ni moom mooy suñu sëriñ mooy ki nga xam ni moom la ñu bëgg moom la ñu am te moom la ñuy moom la ñuy tiitaroo waaxiru daawaana alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammad sayid alawalina walaxirin wa ala alihi wa saxbihi wa man daa bi daawatihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yawm ddin njëfa xibri wa in yuhraq ala alwaraqi fi madxikum wa qadaytu allayla fi araqi ما جئت بالعشر من معشار قدركم يا من ركبت براق العشق والومق أحببت دعدا كما وكلت تذكرها أنا جلست تزكي قلب كل شقي مدامة الحب ما تنفك تسكرنا متى جهرت بذكر الله في الأفق وحين تنطق ما برهام نتبعها والله نحن مقول العاشق الغرقي يا سيدي يا وكيل السر يا مددا للناس أجمعهم يا راية الفرق يا آية يا آية الشيخ معنا بلها صورته يا آية الشيخ حسا أغدغا وثقي أنا على الدرب نسري خلفكم أبدا أرق علينا فيوض المصطفى أرقي صلى الإله على المختار سيدنا عد الحصى والقطى والسحب والورق mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñuy déclarer oote ngir ziyaara kenn ci ñi nga xam ne sikk amut ci ne ñoo jëmm Cheikh Ibrahim barki démb xaw ma lu ko waxloo man sëriñ bi li ma xam ci moom mooy day daw loolu waaye barki démb ca Paris dafa tourné wax taalibe yi na tey moom na ngeen na leen wóor na tey gis ngeen bàyyi ziyaara bii ñuy oote nii ngir moom la mu nekk koo xam ne Cheikh Ibrahim dafa wax ne sàkku na dafa wax ne sàkku naa sàkku naa la li tax waxuma ñeneen ñi mooy ne doomam yépp la ko wax waaye dafa ne sàkku naa ngeen nekk waliyu yàlla ca xëy bu ca xëy bu mu nekk koo xam ne baay ba muy wax ne góor yàlla yi bu ñuy rawantee ci tagg yenentu bi dinaa ko tagg ba bu mu fi jógee tamit dinaa fi bàyyi njaboot goo xam ne da koy tagg ñu xool njabootam ngi gis ne ñu ci néew ñooy wéy ñaar walla ñett la waaye baaba moo ci ëpp mu nekk koo xam ne baay ba mu demee bay tudd mbëggeel bay dénkaane majnunu wakil majnunu daadin moom moom ba muy wax dafa ne ahimu bidaadin ma xayitu wa in amut fala saluhat daadun li di xullatin baadi mu ne maa ngi bëgg daadu di jeex ci moom ba bu ma fi jógee yàlla bu kenn gis daadu ba xemem ko sax ba mu neex la neex ko bàyyi ñëw ne déedéet man duma wax loolu damay ne damay bëgg yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam sax ci mbëggeel googu noonu bu ma demee ba jógee fii dinaa bàyyi koo xam ne dafay sax di bëgg yenentu bi di ko takk loolu ci lijaasa bi la ko wax kooku la ñuy ziyaara la trois ziyaara comme li ko imaam waxee ziyaadatun la wa siyaadatun ndollal nag ci kaw suuf nit dana ko sàkku ci lu ne dana ko sàkku ci alal yenentu bi nee na eh, jullit nee nit dara du feesal biiram lu dul suuf kon loo bëree bëree bëri la bëri la doo ku ñëw la trois loo ci seentu rek da nga ko gis comme li mu ko waxee moom ci woy ba duggal ci pay ba loo fa sàkku loolu xam pay baa di taar te moo di leer te moo di set kuy jublu foofu la lu baax foofay këram le trois bi muqaddam yi Cheikh Mouhamadul Amin taaliba mi njabootam yi oote ci jiite Cheikh mustafa bi tey yal na yàlla yokku wéram yokku kàttanam ñu ngi leen di oo ci payu yàlla baaba nit ñi liñ ko xamee fii mooy baaba allah allah ndax ñun laa ilaha illallah rek la ñu nandal pay boobu nag moom lañ leen di oo le trois i sàkku ñëpp teew ci ku ci mën a teewak ak jëmmam mu teew jëmmam ku ci mën a teew ak ruuxam mu teew ak ruuxam ku ci mën a teew ak poosam mu teew poosam ndax noo mënti teewee rek noonu ngay amee li nga bëgg te comme ni nga ko waxee nit bu boo xam ne dafa am garantie waxuma garantie keneen waaye garantie Cheikh Ibrahim kooku wax dëgg fa yàlla ziyaara ko rek ngir bokk ci ñi nga xam ne bu yowmal qiyaama même boo deful dara lu baax sax lu dul la waaje waxoon bastaami ñu ne ñu ne yowmal qiyaama dafa teew yàlla ne kii safara la jëm waaje bastaami romb yàlla ne bastaami rammul nit ñi waa ji xool ba sàmmi na ko sëñ bi xàmmeewu ma mu ne ko déedéet mu ne ko man maay ki nga xam ne ba sa ba nga ñëwee dëkk sàngam sa sa kaala wadd man maa ko foroon jox la ko mu ne yàlla kii da sama gaay la bokk mën a dugg leen baaba nag ñun eh, waxuñ waxi njaboot njabootu jëmm mais njabootu ruux la ñuy wax ñun lu ne gis nañ ko fii sëriñ lépp lu muy oote rek ak lépp loo xam ne lu baax la ci sëriñ rek ñu gis nañ ko ci jëmm ji gis nañ ko ci mbaaxam gis nañ ko ci tabeem gis nañ ko ci bëgg yàllam gis nañ ko ci oote gis nañ ko ci yombal lépp loo xam ne nit ki bëgg na ko gis nañ ko ci isaaru nit ñi ci boppam baaba soxlawul ci kenn dara bu ngeen indi woon milliard gannaaw suba bu ngeen ñëwee laajte ko ñu ne dem na te du ko jox njabootam du ko jox njabootam loolu na ko nit ñi xam kon nag ñu ngi oo ñëpp ci ziyaara bi di ñaan yàlla yàlla yóbbuñu ci ci jàmm yàlla indiwaat ko moom it ci jàmm mu jóge Paris ànd ak kàttan euh, ànd ak euh, euh, lépp loo xam ne bëgg na ko te yàlla dolli ñu mbëggeel keroog ba muy jógee fi di dem Paris maa ngi koy wax ma ne ko sëriñ bi ma ne njaboot gi ma ne ko seedeel ñu mbëggeel mu tënne na ma yéen it seedal leen ma mbëggeel rek donc ñi wadd rot ma ne ko ñas man de li ma foog mooy ne lépp a lay seedal mbëggeel mu ne alhamdulilah mbëggeel de mooy lépp yàlla na fi del si bañ mun koo won ñu nit suñu mbëggeel ci lu tolloog darajaam moom li tolloog li tolloog maqaamam wa ma dalika alallahi bi azizin واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اهدنا ورعاونا احسانا وانظر الينا وانصرنا دينا اد حقوقنا واد دينا وحب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز أن كل من قد أحسن إليه من رب جزاء حسنة بمنصب الشفير يوم المعشر خير ورا قد حبيبك وسلم صلى الله عليه ربنا وسلم أفاد بغير لنا وأمما صلى الله عليه ربنا وسلم أفاد بغير لنا وأمما صلى الله عليه ربنا وسلم أفاد بغير لنا وأمما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 mbokk yi ma leen di xamal ne maag yéen a ànd li ngeen nekk ci lañ ne li ngeen di def moom lañ moom la ñuy def li ngeen di wax moom lañuy wax kon ñun kenn ku nekk ci ñun ak yéen coppi nga ci moromam man coppi ci yéen yéen itam coppi ngeen ci man bàyyi nag mooy ki nga xam ne mooy nday mbind yi lépp loo xam ne ci bàyyi la jóge jaare ci ñun dañ ko tasaare ndax mu gën a yaatu kon gannaaw mbooloo mi daje te yàlla tax ñu daje bàyyi tax ñu daje yonent bi tax ñu daje Cheikh Ahmad Tidiane moo tax ñu daje mbokk yi ñu leen di nuyu di leen di dénk seen diine fonk leen seen diine fonk leen seen tariqa fonk leen seen sëriñ yi képp koo xam ne fa nga naan ne xam nga ko nanga ko fonk te képp kuy naan dalaate bàyyi moo ko jox lim naan ba tey may yim war a maye dana ko génne lépp ba nu yëpp xam ko mosoo ko jël àddina bi kon mbokk yi ñu ngi leen di ziyaare ñu ngi leen di gërëm ñu di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla yokk yaram ci zahir ak ci baatin yàlla na ubbi bunti wërsëg yëpp jafe-jafe yëpp yàlla ko yàlla dindi ci barke Baay barke yonent bi barke Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu amur ala diyaari diyaari layla ah, ah. uqabbilu على الجدار أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغل قلبي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 الله لا إله إلا الله الله لا إله